ویتر را جدیدی بیار سیده او دید خیباری procès diggante ñi yëngu ci publicité ak Barthélémy Diaz télé am maire Mermoz Sacré-Cœur ñu koy toppee li mu yàq seen i panneau publicité jaaykat yu marché caaro yi di xëy tey tëj seen i cantine ba ne fas xànc ak moroomam ñuy ñaawlu ni seen marché bu mel ci salté. groupe Futurs Media di màggal tey anniversaire am fukki at ak ñett bi groupe bi jiitu ci Sénégal juddoo portabilité di benn numéro téléphone buy dox ci réseau yëpp tey lañ koy tàmbali Sénégal di ñaari réew Afrique bu koy doxal gëstu tey bi di focus yi mbir moomu lañ koy jagleel. ñu tëbtal ci xibaar yi warim tàggat yaram Youssouf Bodian lañ ci yàndal seen dossier société acquisiteur Alexandre Sène ñëwaat rek ci la xew ci hôpital yi su mbangaan bu Rufisque laata ñoo tëjee xibaar yeeg El Hadj Assane Gueye mi ñëw yaatal jote génn ci yéenekaay yi. El Hadj Ndiogou Diène ñu tàmbalee xibaar yi ak jaaykat yi ca marché Thiaroye ñoom nag mar nañ ba fu mer mën a yem li ko waral mooy salté gu seen marché boobu salté ba jéggi dayo waral sax ne leen léegi doot ñu fayti lii di jut yi ñoom sax tey jii dañuy tëj seen cantine ba ñu fas xànc ak morooma dañuy déglu kenn ci ñoom Aliou Sidiba ci micro Salisso ñaxtu bi tali ñu ngi si bu soobee yàlla comme que yuuxu nañ ko ba ñëpp dëgg ko nañ def tous les moyens pour essayer euh, avec l'état ñu defal ñu tali maintenant pour salte bi ñu ngi ak nawet bi mais tenter de tout faire pour marché bi set mënu ci liggéey mais nag mais dañuy dem grève grève moom euh, charte réew mi moo ko may ku dem grève tëjël sa boutique dem tëdd mais boo ubbee dal ko ubbi fay bu ñu bañee fay yoon euh, dëkk am na yoon nekkoon Aliou Sidi baax euh, doon wax kon ci turu marchand yooyu di jaaykatu caaro yi nga xam te ne dañoo mer jamono ji layo bi dox diggante ñi di borom panneau publicité yi ak euh, Barthélémy Diaz tey jii lay am ñaar yoon nag daq nañu procès boobule Barthélémy Diaz ñi yëngu ci wàllum publicité di koy topp gannaaw bi mu yàqee seen i panneau ñu laaj nag mu fay leen ndompaay bu tollu ci juróom-ñaar téeméeri million ci sunu xaalis huit tegal ñett ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. leneen ci wàllu xibaar jëm ci yàqu-yàqu yu bari gannaaw euh, bi géej gi yëngoo fan yi ca yarax moom ay kër ki magasin ak usine daanaka lépp la ndox mi daal di nangu nee na nag ay millions yu millions daal di nay naxtaay di loo xam te ne juna njàqaree ca waa yarax Abdourahmane Diallo report yarax ab geej bu yëngu mu am lu bari li mu yàq soxna si moom mu ngi woon këram gi nga xam ni ndoxu géej bee ko yàq here. ay usine ay kër lépp nekk ci peggu géej gi uul bu metti bi moo tax lu ci bari yàqu. Birama Gueye directeur général de sunu industrie. waa ji moom benn pàcc ci usine bi dafa daanu mu ngi ñuy wax li mu jot a ñàkk ci ay koppar. déjà mën nañu wax ay millions. parce que usine ay millions koy installé. donc bu fa ndox mu duggee ba jaxase lépp ba milieu daanu c'est clair que ay millions ñooy yàqu. Birama sax di xamle nii bu ñu defee ay dig dina tax ba ñoom ñu dëkkee ci wetu géej gi ndox bi du leen dal. xam moom la mën a def doole état moo war mën a

abdurrahman Diallo Sambara boobu nga xamante ne géej gi Sambara na ko nag jonne jafe-jafe rawti la ci wàllum ndox mi ndaxte xam ne ne daal am na nag ay yàqu-yàqu ci seen installation yi ci dëkk yu mel ni bax ñi Caaroy sur Mer an Tubaab Jalaw ak Mbuur tax sax ba jamono jot ñoom di leen am jafe-jafe ci wàllum ndox waaye nee nañ seen équipe yi ñi nga foofule ngi daal di lijjanti mbir moomu kon est di xam ne ay jafe-jafe dina am ci gox yooyu ci wàllum ndox mbirum nag géej googu ak ni mu débordé bokk na ci li ko jur mbirum nak eh, li nga xam te ne changement climatique yi ngir xeex lu ni mel ak gën ci ñaax nit ñi mo waral nak eh, maire yi di ci amal ab ndaje di maire yi dekk ci dekk tubaab yi làkk tubaab ci aduna bi ci Afrique ñom ñu wara a amal ab ndaje fi ci Sénégal lata lolu nak eh, démb jano won nañ ci ak taskatu xibaar yi ngir waxtaan ci ndaje boobu lay adrami sibay la collectivité locale yi bëgg nañu xeex li di changement climatique association maire Sénégal ak nguur gi bëgg nañu boole seen doole ngir fagaru si yenn jafe-jafe yi changement climatique The indi Abdoulaye Baldé maire u Ziguinchor. la commission décentralisation. suñu commission ak association internationale bu maires francophones dañuy tàmbali fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñett ci weeru septembre benn séminaire ngir waxtaan ci lii di changement climatique. séminaire sur l'exemple innovant de l'État du Sénégal et de ses villes. waaye lan mooy njëriñu séminaire Boblé. Aliou Sall président wu maire du Sénégal. séminaire bi nag li ko waral mooy gëstu ànd gi nga xam ne Sénégal nous ñu ngi ko ànd ak Sénégal ngir xeex euh, jafe yi nga ñu koy am te mu ci jaww ji ñu koy climat. yu Sénégal ñoom dañu gis dafa am solo ñuy taxawal ay projet yuy wàññi jeexital yu soppeeku jaww ji am. Adrame Ismaïla Koli euh, baykat yu nekk vallée bu fleuve Sénégal yaakaar ci waral tracteur Euh, fi mu toll nii nag euh, ñoom lu toll ci ñetti junni hectares euh, daal nañ koy bay ci yaakaar nag góob lu baax Aliou Bandel yaakaar gi judduwaat ci xelu baykat yi fare ci région bu Matam ñoom ñi dëkkee njaxare gannaaw bi ñu génn ci campagne nawet gi daaw ba waral ñu gën a bëri si ñoom sax jotu ñoo dem ci campagne contre saison rawatina ci diwaanu Bosoyo bi commencé nañoo dalloo ay groupe motopompe yu bees tàq mu jaare ci programme bi ñu duppee PUDC kilifa yi sayet kon tàmbali nañu kon saafaraab tawat bu ñeel wàllum irrigation maanaam doon fexe ba ñu pompe ndox mi muy dugg ci biir tool yi bu baax a baax yokku ci nag lu xaw a ëpp ñetti junni hectare lépp di ay tool yu bees ak ay casier tax na tey jii ba kon daal di yëkkati ay ambition maanaam lu jëm ci wàllu yéeneem Paul Marie Faye mooy njiitalu SAED bu Matam. ko waral mooy que tout simplement dafa am ay tool yu bëri ñuy defar ci wàllu PACA muy ay périmètres yu bees fekk ci aussi amoon nañu ay projets yoo xam ne ay bailleurs de fonds ñu mu fekk ci aussi effort gouvernement bi ci wàllu machine yi surtout aussi wàllu tracteur parce que am na beneen lu tracteur bu exi boole ci aussi accompagnement nga xam ne suñu ko ren jéego yu takk ya wala sax ca casier ya béykat jamono yi ñu ngi yëngu bu baax a baax lu jëm ci wàllu njiw mi wala repiquage bi waaye rek nag benn laaj waaye rek nag bu ñu jàppee ni taw yi ñàkkee ci nawet gi ren béykat yooyu la kat am nañu njàqare ci seen biir bopp ndekoon ragal nañu dund jafe-jafe yi ñu fi amoon daaw gannaaw bi nga xamante ni doxub Sénégal gi dafa wàcc ba jéggi dayoo mu nekkoon seen naataango yi Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM Ali Bandelian tay di ben fan ci wéru septembre mu def nak fukki at ak ñett gannaaw bi groupe Futur Media jiddo kon tay di fukk ak ñettelu anniversaire bi groupe Futur Media nek jamono ji groupe bi jitu ci Sénégal ci walum presse ak euh, RFM TFM L'Observateur ak site bi di IGFM ñuy wax ñep joyeux anniversaire di ko wax tamit auditeur yi nga xam ñoo safo radio bi sa suné di ñu déglu ak di ñu jappalé 8h tégal juróom ñett minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegseeg yéen léegi ci focus bi tey ñuy waxtaane mbirum portabilité eh, dina léegi nit ki mën naa am benn portable pour réseau yëpp même numéro bi moo ci dox di do xamante ne nag eh, tey lañ koy lancé Sénégal nara nekk ñaareeri réew ci Afrique bu doxal lu ni mel ñu déglu ci ki nga xamante ne mooy directeur général bu ARTP Abdou Karim Sall ci micro Ismaël Camara. Euh, désormais euh, client bu nekk am na sañ-sañ euh, jóge ci opérateur bi mu nekkoon dem ci opérateur bi mu tànnal mais buy dem dafay yóbbaale numéro bi nga la yoroon tey ni ma koy misaale euh, bu fekkentee euh, client Expresso ou le client Orange ou le client Tigo la su fekkentee ne euh, dafa xeeb li nga xam qualité de service bi ñu koy jox opérateur bi nga xam la nekkal am sañ à partir du 1er septembre jóge ci opérateur bi mais buy jóge ci opérateur bi dafay yóbbaale numéro bi nga xam ne moom la amoon numéro bi nag ak préfixe bi la dinañu gis koo xam ne numéro 77 la fekk Expresso la nekk wala numéro 70 la fekk Orange la nekk mu nekkoon euh, leeral yu Abdou Karim Sall di directeur général bu ARTP loolu nag nga xam te ne benn numéro la nit ñi di am ci réseau bu mënti doon ñi di askan wi rafetlu nañ ko ca diwaanu Sédhiou yàkkamti ne lool ñu tàmbali ko doxal Lamine Ba fii ci diwaanu Sédhiou néew na loolu ñi nga xamne mëna ñu tassé ak ñom ba ñu wax ñu li ci portabilité numérique wayé bu ñu waree lu yàgg tassé nañu ak ndaw ci jigen ci mom amna li nga xamne jot na ko si xam. dalay permettre nga am benn numéro bo bëggé changer opérateur benn numéro bi ngay conserver. Aminata Sall la tudd mom nak lu mu xamne moy portabilité numérique sa suñ ko tambalé suñu réew dana jur ngëneel. waaw am na njëriñ ci population yi té <laughs> daf leen di obligé ñu ñu def ay effort ñu gën gor góorgóorlu. wayé nan la opérateur yi di fexé citoyen gën a góorgóorlu ngir service yi ñu koy jëfandikoo am ci ngëneel ca ni ko Aminata xalaatee Lamine moom informaticien la am na ci tontu. dina pousse tuuti opérateur yi ñu gën a def effort euh, si lu si lu ñuy liggéey parce que benn opérateur bu amee problème di nga mën a am choix tànn beneen kii quoi beneen opérateur nga garder sa numéro. moom nag ci xalaatam ci beneen wàll opérateur yi dañuy fexe ba fépp ci biir réew mi ñu mën fa taxawal seeni réseau ngir ñu bañ a ñàkk seeni clients. parce ne réseau bi taxukaa am doole foofu noonu donc euh, dina day am ay opérateurs yoo xamante ne parfois boo demee ci yeneen partie territoire bi duñu am réseau donc euh, ñoom dina leen pousser ñu gën a góorgóorlu ci seen euh, réseau bi un peu ñu démocratiser tuuti seen télécommunication yooyu ngënam nga xam ne portabilité numérique war na ko indi tax na ba ki nga xam ne moom lañ njëkk a sekkal waxtaan bi di xam le ne Sénégal yéex na ci dugg yéex nañ ci dugg waroon nañ ci dugg yàgg na ndax pays ci ci ci dëkk yi développé yi ñoom dugg dëgg Sénégal tamit waroon na ci eh, dugg yàgg. fi ci Sédhiou ñu bari ñu ngi xaar nag portable ja numérique ñu dugg ci ndaxte ñu di jëfandikoo téléphone yi ak internet bi yaakaar nañ ne daal dana tax bu service yi ñu mën ko améliorer. Lamine Ba Sédhiou rajo Futurs Médias Lamine Ba mbir mom nak di ben numéro pour réseau yëpp nak dina jug djural ay yenen ni dépenses ni di opérateurs yi waye askan wi ñom euh, dinañ ci bénéficier loolu nak ki ko xamné moy mohamed Tidiane Seck di expert ci wàllu euh, xarala yi universiti mu tam jangale kat ci université aw portabilité di lo xam dafa melni buntu sarala ci digënté opérateur yi manam ben numéro ngay yor mën ko jëfëndiko ci réseau yépp loolu nag di lu yees Mohamed Tidiane Seck xam-xamam màcc jëm ci wàllu jumtukaayu xarala yi gis ne lu amal solo way jëfandiku yi la. njëriñ bi. pour opérateur bi ba ko trop njëriñ bi maa ngi gis ci askan ñoom ñi am seen numéro te suñu buggee changer opérateur boo xam ni foofu la ñu bugg dem ñu mën fa dem garder seen numéro keneen ku leen woowaat ku leen bugg woo numéro bi mu leen tàmmee woowee rek la leen di woote ci loolu sax jàngalekatu université bi gis na ñii di opérateur yi dinañu war a génne ay koppar opérateur yi ñoom ah faaw ñu fagaru ak ay ingénieurs yoo xam ne dañ leen di eh, ñoom ñëpp mobiliser pour que ñoom ñu jóg ci liggéey bi opérateur bu nekk côté opérateur yi ak régulateur bi ARTP liggéey bu bu wóor bu takku la la laaj. ndorteel li nag nar te yomb waaye Mouhamed Tidiane Seck am na ci yaakaar. waaw man foog naa ni yëpp war na sotti ci yoon ndaxte su fekkee ni jafe-jafe mën na am du doon ay jafe-jafe yoo xam ni dana àgg ba ci nit ñi dootuñu mën wooteeg yu demee noonu jafe woote bi mooy peut-être mi ak ni ngay defee pour changer numéro pour jël numéro jë jële fii dem fee mbir mi mën na yéex ci njëlbeen ba wante wala ay weer yëf yi portabilité doog a ñëw ci Sénégal mu mel ni lépp ci way jëfandiku yi xamuñ ci lu bari Mohamed Tidiane Seck am ci yaakaar nag ne ñii di yi bu ñu jëlee matuwaay yu war portabilité dina dox na mu waree fii ci Sénégal Dia ci àndal euh, Youssouf dañuy wax joyeux anniversaire. waaw merci euh, Ndiobo di tamit euh, wax joyeux anniversaire suñu auditeurs yi ay ah. ayca ci wàllu tàggat yaram dañu koy door ak wàllu football mercato bi di jënd ak jaay joueurs yi ca tugal jeex na. démb ci minuit ay joueurs sénégalais jot nañoo changé club ki jigéen a fës Nisson Misson Djilabodji. Euh, dem fële ca Chelsea ca Angleterre ñaari milliards ak juróom-benn téeméer million ci franc CFA ñu ko jëndee défenseur international sénégalais bi nag euh, nekkoon joueur ay Saloum bu Kaolack euh, jóge nant jamono yi nga xamante ne kon benn at contrat moo ko desee moom mooy ñaari du joueur Sénégal. ginnaaw Demba Ba euh, kon war football foofu ca Chelsea pap Kouli Diop moom itamit euh, ginnaaw bi nga xamante ne contrat am jeexoon nag Levante dem na léegi fële ca Espagnol Barcelone contrat ñetti at la signer. ca France Zargo Touré jógee Le Havre ak Ligue 2 euh, dem ca Lorient mi nekk Ligue 1 ñeenti at la joueur sénégalais bi signé Amara Babi moom mi nga xamante ne kon Auxerre da koo dàq moom nag léegi ca la nekk ca première division club bi ñuy wax Charleroi euh, et puis Lise Gomis mon gardien équipe nationale du Sénégal mon métamètre euh, fay Al, ko club bi di Frosinone qui est ci première division bu italienne di Serie A. record transfert nak ci mercato estival bi moy Anthony Martial di doomu France. Manchester United moo ko jël juróom-ñetti euh, fukki milliards ci euro lañ ko jëndee euh, joueur bi nga xamante ne kon fukki at ak juróom-ñeent cote la am nekkoon Monaco mooy joueur France bi gën a cher ci histoire bi jiitu kii di Zinedine euh, Zidane. beneen transfert bu mujjut a am di David De Gea di gardien ca Manchester United ñu mu bëggoon dem kon ca Real Madrid waaye yëf yi mujjul antu li ko waral nee nañu. Euh, moom David De Gea ay dossier am Manchester United bi ñu ko envoyé waa Real Real la ñoo amoon problème pour ubbi format bi ba tax na dafa tardé kon euh, dossier yi ngir ñu transmettre ko Liga bu Espagne moo taxit kon joueur bi peut dina xaar ba hiver bi laata muy dem euh, foofu ca Real Madrid. football ba léegi ak équipe nationale ñu koy xaar tey jii ca Namibie. ci capitale bi di Windhoek ci ngoon si la ñuy xaarandi kon équipe nationale bu Sénégal gaynde yi dooroon le regroupement dimanche ca Paris. kii di Diawandou Diagne dañ ko convoqué joueur FC Barcelone te ñu aal ko fële ca euh, Open moom nag day ñëw ngir wuutu kii di Alfred Ndiaye bi am gaañu gaañu bi Betis Séville clubam di football ak euh, Real Madrid ci week-end bi weesu. Euh, lépp kon di ruusee ci regroupement bi ak préparation gaynde yi foofu ca Windhoek ngeen ko am suñu xibaar yi di ñëw ak suñu envoyé spécial di euh, Malal Junior Diagne noté leen tamit seen agenda ni am na match amical tey ci ngoon bu 16h30 jotee ca stade Léopold Sédar Senghor euh, diggante équipe nationale locale bu Sénégal ak équipe A bu Cameroun Camerounais nag ñu ngi ci Ndakaaru ngir waajal seen match seen diggante ak Gambie ci éliminatoire CAN 2017 équipe locale bu Sénégal nag day waajal matcham diggante mag Guinée weeru octobre lañ ko jàpp ci wàllum éliminatoire CHAN Rwanda 2016. Euh, Youssouf euh, gannaaw football ñu wax euh, basket suñu gaynde góor yi ñibbisi nañu bi. ginnaaw bu ñuy jëlee ñeenteelu place bi ci afro basket bu Tunisie Malé Ndoye ak ay ñooñoom jóge nañ Tunis kon ñibbisi démb ci ngoon fii ci Sénégal waaye nag seen vol bi dafa am ay retard ndax réservé ñoon kon amuñu woon benn place ci avion yi nga xamante ni fa la ñu bëggoon dugal gaynde yi mu doon ay jafe-jafe tamit ci wàllum prime te jafe-jafe yoo xamante ne tax na kii di Antoine Mendy wax ni moom dootul ñëwati ci sélection

Euh, di xàccandoo di dóorandoo li ñu bëggoon mooy jël raaye bi waaw lu bari amoon nag waaye nu woon ñu continuer di def lu ñu waroon def mënoon nañ jël suñu prime de participation yi bu yàgg waaye ba léegi dara waaw man nag mayo Sénégal euh, mbégte bi ma jox ak tamit euh, ni ma jëlee fukki fan yi doon ko xeex pour sama réew loolu amul dara li nga xam ni mën na ma ko fay sama bopp laa ko defaloon suma famille loolu kenn mënuma ko fay waaw équipe nationale bu Sénégal daal du mooy naa ko argent. Tournez la page. N'importe quel cadeau pourront pas me payer ce que moi j'ai vécu ces derniers jours. La page est définitivement tournée. mu fàttali ne Antoine Mendy 2011 bi ñuy ko sélectionné woon ñu dem Afro Basket waaye tamit dafa mujjee ñibbi ndax fay ñoon assurance am waaye ne léegi dootul ñëwaati laaj njëkk. jafe-jafe yu ni mel nag jëli kenn euh, jigéen yu basket yi bëggul ñu ko dund ñoom. ca Brazzaville wala ca Cameroun fi ñu nar a bokkee ci Afro Basket bi seen sélectionneur Moustapha Gueye am yaakaar ni euh, kon suñu demee foofu joueurs joueurs yi ak tamit euh, staff bi nañ nekk ci yu baax moom sax démb siiwal na liste fukk ñaari joueurs yu nar a bokk ci euh, Jeux africains yi ñu ànd ci ak euh, Sora Thiam ci li nga xamante ni gaynde basket gi moom la ñuy loolu tax na xel ci biir tañeeru gaynde jigéen yi loolu nag yokk ci prime yi nga xamante ni kenn fay leen ko ba ñu duggee regroupement ba léegi Moustapha Guèye ci àddu man daf ma tiital parce que def naa relation de ni ñuy entraîné xale yi laalu ñu dërëm c'est dommage mais comme ñoom elles ont nekkuñu fi pour xaalis dañu nekk pour di seen mais aussi am naa yaakaar ne fii ay fan balaa ñu dañoo amal ñaari compétition mu di Jeux africains yi ak afro basket bi waaye ci loolu nag coach bi dalal na ci xel en fait Jeux africains préparation la mooy dernier partie préparation pour ñun pour que afro basket bu ñu fa eggee ñu mën am suñu équipe ba nga xam ne afro basket bu ñu eggee ñaan yàlla yàlla may ñu euh, nu mu waree loolu daal mooy seen xalaat li ci ñëpp jàppale ñi ci ñaan na ñaan yàlla defal sutura. loolu nag di firndeel liste fukk ak ñaari joueurs yi nga xamante ni nañ ko niki altine ji mu di choix boo xamante ni dañ koo def gannaaw ba ñu basé ci différentes phases de préparation yi. loolu nag la ca yees rek moo di Binte Diouf bi nga xamante ne bokkul woon ci liste présélectionné yi te mu dugg si ci loolu nag Moustapha Gueye di ci indi leeral bu ñu évaluer équipe bi même avant Bamako xoolaat suñu doole xool un peu anticiper ci éventuel problème yi mën a am devant nos futurs adversaires c'est dañu manqué au niveau du intérieur un peu de joueuses fortes défensivement te ñu mën yokk ci ne jël nañ ay matukaay yu mat sëkk ngir ñu bañ a ci ñaari compétition yi ñu jam waaye itam def lépp ba équipe bi bañ a sonn laata compétition yi di jeex fi mu nekk nii nag gaynde yu jigéen yu basket gi du gàddan ci regroupement Sora Thiam kon ñoom euh, dinañ def ñaari match xaritoo laata ñuy dem foofu ca euh, Brazzaville ngir bokk ci Jeux africains yi laaj jox jaajëf euh, Youssouf Pour man, RFM moy Radio bi gëna a jege askan wi. RFM radio bi jaamu seen soxla. ñu yegg ci yéen légui ci dossier bi tay di talaata mu ñeel walu société di nekk askan wi tay ñuy waxtaane hôpital Youssou Mbargane bu tingé ci bobu l'hôpital gis na ndox yu bon ya fay da fay ball di dugg ci kër yi nga xam ne moko wër ndax nak euh, canal ba ak nam ko euh, réseau ba di lo xam ne nak askan wa jural na leen ni jafé jafé ñi déglu ci dossier Isidore Alexandre Sen. Ok, ñu na fii man kenn bi mu taw maa gën sama bokk. maa def ci taatu mur bi ma gis les trous qu'on a fait ci booru égard égard bi nekk ci booru maternité ndox mi di génn man damaa mujjoon a indoole gis nga mur bi ñu def nii sama saal bi sama néeg bi sama kër gi yëpp ndox moo xam ne dafa xonq coy salte xasoo kunn moo gën a xasoo ndoxu France kon xam nga c'est du sang collecté. muy lu toy waar waaye population yi dëkkee wetu yu Sumbargaan moom la ñuy dund ay fosse septique la ñuy ubbi te ndox ma fay génn dafa salte ci loolu yëpp mën naa am njeexital ci wër gu yaram waskan wi. kii am fi choléra tey yomb na am fi jaarvénus yomb na am fi Ebola yomb na yaa yaa ko dee microbe yoo moom waxaale ko si ginnaaw ne boo tourné noonu boo gisoon fi da ngay a jox. buñ sukkandikoo ci Amadou Diop di secrétaire moom tamit moom mooy responsable division hygiène ak santé fii ci l'hôpital bi lii yëpp defoon nañ ko ci seen ñaxtu waaye boobu ba léegi mu mel ni kenn faalewu leen. soo gisee ndox mi du tuuru foofu daf ñu naqari ñun travailleur ba tax na dañ ko jëloon sax def ko su suñ plateforme revendicative pour que hôpital bi jóg si amul woon satisfaction bañ ko defee suñu revendication yi plateforme bi daf na at léegi bañ ko déposé. kii nag nee yàggul toxu sax fii ci wetu Youssou Mbargane waaye moom bu doon ñaari yoon du ko dolli. moo fiy dëkk xam nga li yàq xaalis ah, yow sa gan bu ñëw sax da ngay hôpital buñ koy dégg mooy li nga xam ne war na dugal loxoom bu baax a baax ci wër gu yaram askan wi waaye fii ci hôpital yu sumbargaan ñenn ci askan wi safaano lañ gis dëkk nañ fi ak hôpital mais hôpital bi suñu bopp ci hôpital parce que seen force yeeg dañ koy déverser fii suñu suñu doom yi fii la ñuy foowe fii la ñuy footballé fii la doom bu ma la ko woon léegi danga ma déedéet tànk yëpp diw nañ ko bi nag dafa jege benn kanaal bi nga xam ne ndoxub taw mi ak ndox mu salte mi fa lay jaar canal boobu te njëriñul dara ndax ndox ma fay dugg day dal di taxaw te boo gisee li nga xam modi melokan di melokaan bi sax daanaka dafa jéggi dayo nii lañu noyé di fi jaar xalé yi di ci fo guddi ak bëccëg man demon na mais li mom dafa rafet le directeur il paraît ñi fi jottone nag dam nañ gis ko ku ñëkkon ñi fi ñëkkon wax nañ leen mais trop yi ñu def lool pour la dañu wara def ay canalisation mais wara ñu bëtt ndox mi bu ndox bi demee ba fé ndox bi di jàll di def santé bobu nak di joggé ci biir hôpital bi ñenn ci population wi faré fi nak nenañu ndox mi tamit day andak lii di deret ak yeneen i jumtuwaay yi nga xam ne wàllu hôpital bi dañu ko jëfandikoo ba pare. léegi da ngay jékki gis fi ndox mi di génn ànd ak lu deret. loolu lu ñu naqari la lu ñu naqari la. seringue yeeg yëpp day génn fii xale di ci mu jóg ñun dañ leen ne bu kenn jaarati boor bi léegi seringue yooyu li jël mbalit mi di ko tuur si ginnaaw hôpital bi xale yi ñëw di fo ci serengel yi xam nga loolu yëpp ñun ñun sax ñun su bopp dañoo ragal mooy lan yow ñoom ñun dañu ñëw di faju si mais dañ fiy jëlawaat jàngoro xam nga loolu neexul lu dul fosse septique yi lii di environnement hôpital bi des naa set ndax mbalit ba nga fay ne gàññ ay ndox yu salte ay mbalit muy la nga xam ne mën na indi feebar bu bari bari ci askanu jorga ak yeneen quartier yu sorewal yu su mbargaan ndaw si di woo kilifa nguur gi ñu indi ci saafara nañuy jàppale

li ci yéene kaay yelage Assane Gueye lañ ci àndal gannaaw bi nga xamante ne Mouhamed jamono ji dafa nekk ci bër ñu koy ñaanal congé jàmm kon revue de presse bi ak El Hadj Assane